40 jours après son décès. 40 jours après son décès. 40 jours, 40e jour, assis à la droite de, Dieu. Assis, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu.

du fii mooy sama àdduna àdduna bi dama fi gane si woon rek comme gars yi li ñuy wax rek dañ fiy gane si man sama jëmukaay sama destination mooy sa asamaan waaw borom bi moo ma santoon ma ñëw nemmeeku dund dund a doomu aadama pour xool bàkkaar yi mën a gàddu bàkkaar yi loolu mooy sama mission loolu la sama mission jeex na sama mission bu jeexee dinañ ma reuy sank ma toroxal ma te xamna ñi ñi ñi waral lool yépp te ñi mu doon anda andal waaw moy amna ñu ko doon nax ba ñu amna amna ño na dañ ko wor waaw motax juda juda juda kat la si àndandoo am bëkk neegam yi demon na mom ba gis ko la veille bala moy bala bala lolu am balaa lii am mu am waxoon na si bëkk néegam yi kenn si ñoom mu ne am na kenn yéen a ngi nii topp ma dina am kenn koo xamante ne moo may dina ma jaay moo may reelu waaw waaye loolu du dara waaw xam naa ne sama mission lan la léegi buñ ko reyee ba pare ba suul ko quarantième jour bi boobu la dem noonu foofu noonu boobu la yéeg ci kaw asamaan 40 e jour bi dem borom ah, ascension ascension bo xolé si français moy lu est ascension Moy action bo à maintenir kaw di ci di ascension ah, ascension ah, français rek daanaka di dem ci kaw di avancer di dem jëm si kaw jëm si kaw ay ascension